ja da nga jàppoon ne ay danger lañ pour la république donc ngay wax ci ñoom mais nga wax ci ñoom le 24 mars les sénégalais. Mhm. par 54 virgule euh, xaw ma ñaata pour cent. oui pour cent. pour cent ou pour cent. waaw yëkkati lenga yëpp 46 pour cent yëkkati lenga yëpp. jox leen pour la première fois au Sénégal une opposition accède au pouvoir au premier tour. Oui. après ñooñu xanaa kay boobaa di nga guddi boobu di nga ne ah man wax naa kat le peuple souverain a décidé ah naa naa leen bàyyeek ñoom mais matul une matul une semaine nga jëlaat sa bâton toogaat nan lañ mën a comprendre loolu mën baax li nga wax njuumte da cee nekk lu rëy rëy ban njuumte le peuple souverain n'élit personne ah bon ay électeurs ñooy éli ñooy élire. mais on dit que le peuple le peuple a parlé. non non non c'est excessif. ci waxin la rek mais mun na ay 54 pour cent des électeurs. waaw mais ils ont parlé au nom de tous les Sénégalais. c'est pas le peuple <laughs> le peuple est plus vaste que ça. waaw mais ils ont parlé au nom de tous les Sénégalais. non non non les les gens qui se sont abstenus les gens qui n'ont pas voté les gens. le euh, peuple non xaaral maa ngi lay may le peuple ëpp na même électeurs yi. les les électeurs ñett fi jël peuple bi yëpp na leen. mais loolu c'est une incongruité des règles démocratiques. non non non non 6 millions d'électeurs qui élisent un président de la République. xam nga yooyu wax la joo xam ne. soo ñaar yi damay wax toujours nit ñi man dama ciy def ndànk. mbirum lacc ñun la yàllaay fal. nga dem laaj ci ñu ne le peuple bi fal. yàlla du fal dégg nga démocratie nit ñooy xëy dugal urne. mais yàlla yàlla mooy jël nit dugal ko ci xolu nit ñi ba ñu. fal ko d'accord d'accord naa ci loolu waaye nag xam nga. yàlla joxe nguur de xam nga may ma lu tax may waxee noonu. Hmm. man yàlla dama koy bàyyi moom muy def yi fi yàlla man may def yi fi nit. élection yi fi nit la nit ñooy xëy dem jël seeni bulletin dugal ko ci urne bi bi des mooy peuple bi ëpp na 54 pour cent peuple bi ëpp na 100 pour cent des électeurs mais c'est ça xam naa loolu xam nga vous n'apprenez rien. Ah. mais c'est le fait de dire que peuple loolu nag maintenant le fait que 54 pour cent des sénégalais jàpp ne opposition boo xam ne pendant 10 ans fen sos yàq der yee soo ko faatu soo ko yàq alalu réew mi. soo koy yàq alalu doomu réew mi soo koy yàq alalu réew mi 54 pour cent yooyu leen jox du tax mukk ma efface ñu mën a effacer lu bon li nga xam ne. Sénégal xar-xar ma en démocratie xar-xar du tax. quand la majorité décide on se plie. non non je le sais moi mais kii euh, na ma euh, di may mun ne m'apprenez rien sur dama ne 54 pour cent yooyu def loolu defal ko ñii. du naan les Sénégalais dans leur écrasante non les Sénégalais personne les Sénégalais dans leur écrasante majorité ah ont tranché ont tranché cette adversité peuple bi ëpp na 54 pour cent des électeurs peuple bi ëpp na 100 pour cent des électeurs effectivement c'est 54 pour cent des électeurs ñoo leen di ñoo leen ñoo leen jox réew mi tey waaye loolu loola 54 pour cent yi man ay saay saay yoo xam ne ci lépp lu ñu doon def ci pen lañ ko doon def ci sos. ci yàqub der ci yee na ay nit faatu fi ay nit gaañu fi ñu yàq fi alalu réew mi yàq fi alalu doomu réew mi yàq fi ñooñu bu leen 54 pour cent ma nee fal gis na bu doon 99 pour cent moo leen fal du teem a contre leen parce que jàpp naa ne ñii baaxuñu ci réew mi jàpp naa ne ñii baaxuñu ci réew mi c'est une contradiction principale. parce que Sénégal musul am parti bu boree waa Pastef mais mais Moustapha est-ce que waruloo tirer une conséquence de cette posture. c'est-à-dire en faisant quoi de cette majorité de sénégalais yu décidé ne ñii ñoo ñu gënal. mais may mun a mais may mun a ci war a tirer a tirer une conséquence politique wala nga soit nga diluer sa discours soit nga diluer sa discours wala nga toog seetaan leen la constitution du bi ñu tënk man ak yow ñëpp man moo ma jox droit ma opposé wu à un pouvoir dëgg loolu dëgg opposition boobu ma jox droit man ma ma opposé wu waxuma ban bis nga koy tàmbali waxuma ban bis nga koy bay dafa am c'est un droit constitutionnel xaaral ma dafa am droit constitutionnel dafa am ce qu'on appelle le délai de décence loolu yow la am yow ci yow la am mais amul xam délai de grâce man ci suivi du mouvement syndical. délai de décence républicaine non non ça n'existe pas moi je parle de la constitution du Sénégal je n'ai pas vu dans la constitution un seul mot on dit que un nouveau pouvoir on ne pas s'opposer à lui donc le droit de s'opposer c'est un droit constitutionnel que j'exerce mais man ci ñu ko fal C'est dès 2011 dès dès novembre 2000 kon a commencé à nous opposer à lui ndeke ma Ablaye Wade nag laa def loolu. mais may nga ko quelques mois. non 2011 non non parce que Ablaye Wade am àndoon ak moom donc il est normal que mais ñeneen dama leen a contre ba léegi. kon yooyu nañ ko bàyyi et may mu a li am solo du ndax contre naa leen wala contre da nga may wax da nga may yondal man seen jaar-jaar bi ñu jaar réew mi seen wax li ñu wax ci réew mi moo tax ma jàpp ne nit ñu bon lañ ci réew mi. que nit ñi ne 54 pour cent des sénégalais jàpp ne ñii ñoo gën ci réew mi c'est leur droit. le mais doo respecter le choix de ces si le respecte su ma ko respecté woon du ma leen reconnaître oh je reconnais Bassirou Diomaye Faye comme le président de 100 et non des électeurs.